metti na ba ci kanamu yàlla wax dëgg yàlla metti na moom metti na ba ci yàlla xanaa yàlla yaayam rek dëgg ko ma mastawu tamit mettawul na trop wax dëgg yàlla metti na trop. looy wax ñi nga xam te ne ñoom moom lañ jàpp ne ñoo def mbir mi. ñi nga xam te ne ñooñu noonu. waaw man de bu ma dañ leen teg fii taal bañ leen di teg taal leen parce que ñaari bakkan lañu rey benn sax ëpp na mastamaa ñaar dafa métti garaan. xaalis xaalis xaalis boo xamante ni tekki woo loo xaalis boo xamante ni mun daal mooy loolu daal mooy loolu métti na daal métti na métti na ba ci kar mooy yàlla ah depuis dem ba léegi sax ñu ngi rey léegi ñu ngi rey dafa métti dafa métti soxna si wóor na yàlla dafa métti dafa métti métti na trop ok